côté dialogue politique bi mais comme léegi fànn fichier bi moom daanaka léegi mu féete boor mhm. ndax ñi ko war a càmbar xamees na leen seen taxawaay dinañ xam ci diir ban nañ koy liggéey daal nañoo mën a waxtaan ak léegi ci kañ la ñuy dem élection élection am na solo mm, mm, mm. donc kon mhm. euh, wax la ne la rek mhm. amu ci lenn lu dépendre ci nguur gi loo nga xam ne coobaarewu na ci nguur gi pour mu ne buñ ko def parce que munoo am ci juróomi téeméeri ak juróom fukk ak juróom ñaar. juróomi téeméer ak fanweer. sa bilan jaar yoon. dégg nga bilan bi ma la bëggoon defal ci sama commune. te yu noon noonu donc moo am ci commune yu ñun. kon bu dee am na ku jaaxle du ko. bu doon mbir mi dañ naan làmb dañ naan nañ sëgg bëri léegi. Ah. waaye da dul làmb nag. Ah. moo tax ñu ne nañu ko. Euh, xoolee ni charte réew mi wax. Uh-huh. ak ni ñu déggoo ak ku jégi uh-huh. ba ñu uh, def ko uh, ci ci ci jàmm. Uh-huh. Uh, jublu ci ci jàmm. am na solo léegi nag xam naa fi may jeexale moom mooy mbirum mbay mi rek. mbay mi ku ne xam na ne horticulture yow lañ ko dénk buñ koy wax defe naa mooy wàllum fruit ak légumes ak yu mel ni kii noonu jamono ji yaakaar naa ne war nga ci mën a tamit indi leeral ay sénégalais fu mu toll est ce que mu ngi dox est ce que béykat yooyu ñu ngi ciy am satisfaction est ce que li ñuy bay ñu ngi koy jaay mu ngi jar ñu ngi ciy gis seen bopp daal en tant que koo xam ne yaa ne ci seen bopp jiite leen. jërëjëf euh, Babacar laaj bu amati solo yow moom euh, nañ ne bu amee solo rek Equivox TV fekkee na ko. <laughs> dëgg euh, ndax da nga ko laaj ci waxtoom. <laughs> Uh-huh. fi mu nekk nii. mais avant ma ñëw ci tolluwaay bi. Mhm. dama bëgg fàttali rek ne daaw. Mhm. mbas maa ngi ñëw ci jamono njaayum lëjum. ok ñun ñu bokk su ma ne ñun nag waa béy askanu mbayum dër laay wax. Mhm. ñoom ñu bokk ci ñu gënoon a yëg dikku mbas mi. ndax yaa ngi fàttaliku li mu àndaloon. bien sûr mooy tëjum marché yi. waaw waaw mooy yemale dem beeg dikk bi dikk bi daanaka daal ba mu indi woon jafe-jafe ci njaayu lëjum yi. te xam nga lëjum Babacar bokkul ak gerte bokkul ak mboq ak bëseeg sunaak mhm. sésame mhm. ak su ñebbe mhm. nga xam ne day wow wow ba pare ñu soog koo fat ñu soog koo denc lii ci tooyaay bi lañ koy téye di ko jaay te dencukaay yu sedd doyagu fi lool xëy na daañu ci waxaat kon xam nga mu ñor nga indi jaay rek moo ci chance baykat bi mhm. kon boo mënta dem ci marché ndax tëj nañ marché yi mhm. mënuloo dem ak dikk camion yi ko doon jël si sax xëy na mayoon nañ leen waaye eh, dañoo wàññi woon seen tànk lool ba nga xam ne eh, dañu commencé woon am am légumes yuy yàqu mhm. kon xam nga eh, baakar loolu jafe-jafe la waaye xam nga président de la république Macky kenn du moom comme d'habitude rek toujours mu ngi ci wetu sénégalais yi catégorie yëpp waaye ci côté wu béykat yi tamit bañ ko ko yëgalee dafa daal di wax DER mooy délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes te suñu xarit Pape Amadou Sarr yore ko nekkoon na jokkoo ak banque yi fi ku ci mel ni LBA nekkoon CNCA avant jël un milliard def ko li ñuy wax crédit revolving crédit revolving mooy da nga jël milliard bi jox ko banque bi ne ko commerçant yu mag yi nañ ñëw nga lebal leen ñu dem jëli légumes yooyu du yàqu ñoom ñu wut nag fu ñu ko denc ñoom commerçant grossiste yi te fu milliard bi jeexee nga dolli leen maanaam li tere ngay dolli leen daal mooy li ñu naaloon ñàkk a jeex bu ko boo ko fàttali ko korité daaw mhm. def naa fii benn tournée mhm. ànd ak directeur DER directeur ARM yore affaire njaay mi ak ay groupe commerçant ak ay njiitu kuréelu béykatu DER ñu jënd ci ñetti fan rek su ma juumul lu jege ñetti téeméeri tol ci taxawaay boor champ maanaam ci biir tool yi lañ ko jëndee. biir tool yi pour dimbale noonu loolu saafara loolu indi ci saafara bu mag Babacar président yemu ci mu jëlaat beneen bi jëndee ko pomme de terre ci programme alimentaire bi ñu doon dimbalee nit ñi ci dund ñu jox ko juróom benn fukki junni njël ak juróom 65000 ménage kon xam nga néew ma dara yàquwul ndax am na lu jotoon yàqu waaye taxawaayu président moo tax ba yàqu-yàqu bi yeggul fenn fi loolu nag li tax ma njëkkee ko mooy rafetlu lu mu def mais rafetlu le fet que mbéyum noor dafa bokk yi gën a yëg ci affaire mbas mi bu dee ay mutuwaay amul foofu lay ñëwee ak yow na ci tolluwaay bi fi mu nekk nii ñu ngi toll ci jaayaat exactement xam nga daaw 2 mars la commencé woon. waaw mais ren ñu ngi ci fin février xam nga 2 mars soreetul. déedéet ñorle nañ nag. ñor na fi mu nekk nii fi nekk ñorle nañu. Mhm. carotte. Mhm. ñorle nañu pomme de terre. Mhm. ñorle nañu soble. Euh, moo tax ma ne laaj nga ko ci waxtoom parce que liggéey nañu ñun ak ARM ARM agence de régulation des marchés. mooy kuréelu ministère du commerce bi nga xam ne. moo mel ni ñun ci wàllu agriculture. ci gëstu affaire production ñor la légume ñoom noonu la yoree affaire njaay mi nu comme njaay mi <coughs> dañ ko war a saytu dafa am luy jóge bitim réew di dugg si bu légume Sénégal jeexee loolu ñu war koo dakkal bu légume senegal ñoree kon xam nga il faut mu am kuy gérer loolu ñun ñu ànd ak ñoom nag di liggéey loolu ndax comme ñun yoo xam li fi war a ñor mhm. kañ la war a ñor mhm. ak nan lay toll mhm. ñu nit kon ñun ñoo leen mën a jox xibaar yooyu am na ñuy dakkal liy jóge bitim réew di dugg ci réew mi loolu nag def nañu ko dakkal nañu depuis le vingt cinq décembre bi passé dugalum karot ak euh, pomme de ci réew mi depuis le 31 décembre dakkal nañ ko pour ndugalum soble ci réew mi kon baawakat da ngay jàpp ne fii ak semaine dem fukki fan loo fi xeewloo mhm. ci carotte mhm. ci soble ci pomme de terre fii la ñore ci réew te fii ba juróom-ñett ba juróom-ñeenti weer ci kanam pour pomme de terre bi mhm. pomme de terre Sénégal lay doon dootul wàcc euh, fii ba juróom-ñeenti weer di am pomme de terre u Sénégal xam nga loolu am na solo waaw bien sûr loolu am na solo alu koom-koom. Mhm. pour béykat yi waaye ci koom-koom pour réew mi. pour réew mi ndax le fait que ñu dakkal jëggaani bi. waaw koom-koom bu bari lay bàyyi ci réew mi boo xam ne ñun Sénégal yi ñoo koy séddoo. Mhm. te loolu mooy dooleel koom-koom fii ba juróom-ñaar ba jëm juróom-ñetti weer bu néew ba néew. xëy na sax juróom-ñeenti weer tamit mhm. pour soble it naka noonu fii ba juróomi weer lu mu néew néew ci carotte bi naka noonu te bu dencukaay yi dikkee ni ñu ko. bëggee ni mu bëggee mu bar bu dikkee bu dee soble bi ak pomme de terre bi mën nañoo def sax douze mois fi mu ko teg nag mooy liñ nar a ñorle ëpp na suñuy soxla ci at mi. Hmm. mais dencukaay yi ñoo doyul woon. Hmm. ba tax muy am bëri lu ci yàqu daanaka téeméer yu ñu ñorle ñaar fukki ak juróom ba dañ koy ñàkk. kon xam nga dencukaay yi bu ñu baralee secteur privé bi ak taxawaay bi ministère bi am fan yi bu ñu ko baralee bu dencukaay amee kon mën nga jàpp ne. daañu dem at mi yu légumes yooyu yu Sénégal lay doon kon xam na salade bi am na solo. bien kon xanaa kon ay jéego am na ci horticulture Babacar. moom moo waral nag ñu gën a sant président de la république jaajëfal béykat yi ndax ay la yéen bu doon bu dee débrouillé rek ci ñi dàq débrouillé lañ bokk. béykat yi waaw maa ngi doon wax ne. Mhm. boo gisee nag tolluwaay bi yem foofu. Mhm. ci wàllu ay résultats Babacar. Mhm. ba nga xam ne suñu production. légume ak fruit yëpp mu ngi jóge ci juróom-ñeenti téeméeri millions yu teg juróomi junni millions neuf cent cinq millions de tonnes mm-hmm. dem ci millions euh, neuf non attafula neuf cent cinq mille neuf cent cinq mille tonnes jëm ci un million six cent vingt quatre mille tonnes ci deux mille dix neuf jéego yu fës yooyu mm-hmm. ak exportation mooy li ñuy jaay bitim réew ci ay légumes mm-hmm. mu jóge ci juróom benn juróom fukki junni tonnes ak juróom benn dem ci téeméeri junniy tonne ak ñaar fukk ak ñaar ci 2018 maa lay wax ne ne jéego yooyu bu amee c'est parce que président moo ko santaane ba pare jàppale béykatu noor yi ci subvention ci engrais nga xam ne ci li gën a li gën a soxla la bokk ak ci jiw surtout jiw pomme de nga xam ne dafa seer loolu ak tàggat bi ñuy tàggat nit ñi ak matériel agricole bi moo tax ñu yegg si foofu mais maa ngi doon wax léegi sama mbir wax ni Euh, jàppale boobu li muy am am solo sori na lool bi ñuy jàppale béykatu nawet yi maanaam béykatu nawet ñoo ëpp fopp jàppale li leen di jàppale hmm. kon xam nga ñoom bu ñuy defee résultat yoo nga xam ne yéeme na hmm. kon il faut am na sacrifice bu ñu seen bopp sacrifice bi mooy ñoom dañuy leb banque ko ndax comme mbéy mu am ñam la hmm. mbéy mu am njëriñ la maanaam dafa am euh, euh, weccet comme ni ko xale yi di waxee ñoom dañuy leb ci banque sax di béy di jaay di remboursé. di waaye comme dafa bëri béykat yu ndaw. Mhm. xanaa ñoom it jàppale bi war naa gën a yokk ci ñoom. Mhm. moo tax fu ma toll maa ngi leen koy laajal. Mhm. te xam naa ne ministre bi fi nekk di ministre professeur Balde. mu ngi ci gën a ay xel at mu ne. te jàpp naa ne at yi di ñëw. jàppale boobu dina gën a eh, yokku. pour que ñoom li ñuy def tamit ñu yokk ko. ndax kiy def résultat yu yéeme. ci ci néew dooleem. boo ko dimbalee mu def lu gën a. yéeme te contexte Covid loolu la laaj mooy ñu produire lu ëpp suñuy soxla mm-hmm. bu ñu teg su bët rek ci suñuy soxla ci wàllu dundu no nañ produire ful ay yoon lu ñu soxla mm-hmm. pour que ñu mën a jaay bitim réew tamit mu indi koom-koom ci réew mi. am na solo voilà te loolu ci horticulture la. la mën a jaar am na solo kon vraiment ñu ngi gërëm. bu baax. Euh, di mais mbaa prix yi du seer mbaa prix yi du seer nga gërëmaale mbaa prix du seer diiraan neuf mois yi juróom-ñeenti weer yi ci kanam waaw mbaa prix yi du aju aju ba Sénégal itam duñ ko mën a jënd déedéet dina wàcc te dina ci waxaat xëy na ci jamono yi di ñëw fi ak weer waa incha allah dina ngeen yëg ni njëgu lajum yi waaw par rapport ak ci nawet bi waaw nga xam ne importé moo fi nekkoon waaw di ngeen yëg ni wàcc na ba yegg ci lool ci légumes yooyu may wax yëpp nag amul amul. amul xaaj ak seen dëgg la voilà donc loolu moo tax nag. Euh, président gis ni. dina am solo moo tax mu gën ñoo xiir. Mhm. te it gën ñoo dooleel. Mhm. ci ñu yokk mbéy moomu. pour que xaalis bi doon jóge fii di dem bitim réew. Mhm. ñu koy dugal ci poosu béykatu France béykatu Hollande. béykatu Belgique. wala Maroc di importer. ñu dugal ko ci poosu béykatu Sénégalais am na solo. am na solo docteur docteur boo amoon looy tàggoo looy wax tey parce que tamit waxtaan bi neex na macha allah ñu lay jaajëfal ci dalal bi ñu dalal tey fi nga xam ne moom mooy sa kër di jaajëfal sa njaboot ak sa soxna ak ñëpp euh, looy tàggatoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay suivre ci Equivox TV. Eh, jërëjëf euh, Bakar li may tàggatoo nag euh, xëy na du joteeg dara liñ fi jote waxtaan yëpp. Mm-hmm. ah kay muy lu jëm ci wàllu mbas mi. dëgg la waay wax naa la mbas mi lim ñu indil daaw ci jafe-jafe. ba bu nekk loon président de la république ak gouvernement am làmbaay dina ñaaw euh, Babacar wax naa ni ñu ngi nii di ñorle te mbas mi jóge gu fi te ma jàpp ne Babacar euh, garab gu mbas bi gën a wér hmm. man bi ma xam hmm. mooy ñàkk koo jot te garab googu am na ci pharmacie am na ci réew mi na garab googu baakar mooy hmm. bañ a tàggoog sa masque bañ a dox lu dul farata bañ a dem ci mbooloo saxoo di raxasu set ak saabu saxoo boo demee fu amul ndox ak saabu nga mën a utiliser sa gel hmm. lii mooy garabu korona mooy kon. Babacar ah. comme corona téye na réew mi. waaw te ñaanuñu yàlla mu wéy ndax kon mën naa indi sax jafe-jafe ci lii may tudd nii. Ah. ndax ñorle nañu war a jaay. war a jaay kon xam nga bu ñu sañoon couvre feu. jeex jeex. Ah. kon xalaatuñu muy yokku. Mm-hmm. te Thiès Babacar. Mm-hmm. capitalu ñaay la. Mm-hmm. te gis nga ne couvre feu mu nga fa. Eh, eh, Dakar ci kapitalu ñaay yi. la bokk. Mhm. te li ëpp ci li ñuy ñorle bu dee téeméer lay ñorle juróom benn fukk yëpp ci ñaari lay ñoree Babacar mhm. kon ñaari région yi nga xam ne ñoo ci gën a fës la ci ñaay mhm. mbir maa ngi fay yaatu couvre feu baa nga fa kon xam nga bu loolu wéyee mara de daal yàlla bu mu wéy <laughs> mën na indi jafe-jafe ci suñu lii kon loolu lay jeexale Babacar def appelaat ñaaxaat sama bop ñaaxaat askan wi Mhm. pour ñu respecter mesures barrières yi na solo ni ko président santaane ministre ministre de la santé santaane ko ko mhm. corps médical bi santaane ko ko mhm. nañu gën a bàyyi xel ci mesures barrières yi pour mun a dànkaafu feebar bi ba nga xam ne du nattu du doon nattu ci suñu yëngu-yëngu koom-koom yu ci mbéy mbéy mi waaye rawatina mbéyum euh, noor ñuy def appel it ne bu vaccin yi ñëwee nañu vacciné wu. Mhm. ñun ñëpp. Mhm. du ma sax ñun ñëpp nga <coughs> jégal ma ndax. xëy na du matagum ñëpp. Mhm. waaye bu dikkee. suñu mag ñi ñu bëgg a njëkke corps médical. bi ñu bëgg a ak ñi am yenn feebar yi nga xam ne àndul ak corona. ñu koy wax ci tubaab comorbidité. yi ñu war a njëkke nañu ubbeeku ci jël ñàkk yi ndax. loolu mun ñoo dimbali ci xeex bi buñ ko boole ak geste barrière yi mhm. yàlla mën na dogal corona ñu tàqaloog moom am na solo lii daal lay jeexale ci appel boobu di la gërëm di ah. sant ci occasion bi nga ma jox ndax xam naa ne réew mépp dinañ ko yëg ah. ndax réew mépp mooy seetaan. Equivox Equivox TV. am na solo jërëjëf docteur Macoumba Diouf kon mbokk yi noonu la demee woon Equivox TV la comme ni ma ko waxee rek ci lépp la ñuy yëngatu lépp loo xam ne soxal na sénégalais yi rek mu lu mu ci doon rek di ngeen ci gis bu soobee suñu borom te bu ci quelque temps rek wala fan yu néew di ngeen gën a gis Equivox ak ay plateau ak ay mbir yoo xam ne nii yu am solo la di nuyu ñëpp di nuyu ki nga xam ne nii moom moo doon El Hadj Diouf nekk ci yàgg maar nekkoon ci montage bi di nuyu groupe Equivox groupe bi yëpp di nuyu le DC Aline Badara Diouf waaye tamit nga xam ne nii moom moo di kilifa gu mag a gi nga xam ne moom buñ ne Equivox moo tax te moom mu ngi làqu chaque jour nangul ko tudd turam maa ngi koy ñaanal jàmm di nuyu tamit waa Saloum parce que Equivox moom ay sénégalais ko sanc waaye nag docteur ay lañ boo xoolee ñi ci ginnaaw ndax ñu nga dëkk ay Pasek la ñu waaw kon fii moom sa kër la waaw waaw yëfi la di nuyu waa Saloum yëpp ah di leen ñaanal jàmm di nuyu waa Lat Mbenge commune ba yëpp ñu ndax mas nañ fa dem wax dëgg yàlla yoo xam ne tamit ñëwuñu fi pour jeter ko fële mais dañ fi ñëw rek pour que moom mu wax li mu def li tax ñu tabu ko lii wax it li mu liñ ko dénk fu mu ci toll te loolu am na solo ndax kilifa gu mu mën a doon ñu dénk la commune yaakaar naa waroo di ci commune ba war ngaa xam lu fay xew kon yaakaar naa moom ci niñ ko waxe ak na ko ay mbokkam waxe ku ñu war a la à travers li nga xam ne moom mooy activité am ci commune Latmingué ak région de Kaolack bi nga xam ne fa la nekk ak haute de kiti bi mu yore di jox ñëpp daje beneen